moi je trouve que c'est un peu vague parce que ça peut prêter à confusion. Au niveau déconcentré, c'est le, c'est le préfet, le gouverneur, le sous-préfet. Au niveau décentralisé, c'est le maire et le président de conseil départemental. Donc jàpp naa ni pour bañ a prêter à confusion ëllëg si biir ay interprétation di ci am war nañu ko mën a leeral ba mu gën a leer alors beneen mbir bi aussi moi je pense que un bon système de parrainage est assujetti n'est-ce pas à la fiabilité à 100% du fichier électoral Union européenne moo ñu mujj a aidé à faire l'audit du fichier électoral mais lan la ñu waxoon quatre-vingt-dix-huit pour cent du fichier électoral c'est fiable loolu mën nañu ci dem élection je suis d'accord mais il pour cent yoo xamante ni fiablul te élection bokkul ak parrainage deux pour cent d'un fichier électoral de six millions de personnes monsieur le ministre c'est cent soixante mille personnes imaginez kenn ku ñëw dal ci cent soixante mille personnes yooyu donc sa parrainage du baax donc jàpp naa ni il faut faire en sorte que le fichier soit désormais stable nga xamante ni du am benn jiixi jaaxa marge yi nga xamante ni mooy marge d'erreur yi am ñu mën ko regle bu ko régler là je pense que booba danañu am un très bon parrainage donc pour vous dire que Sénégal mënuñu ñëw di am ay candidature fantoche ay candidature fantaisiste ku jóg rek ni candidat en l'état actuel on a plus de quarante cinq candidatures donc nous sommes d'accord sur ce à condition que aussi li nga xamante ni mooy suñuy préoccupation ñu mën ko jël en compte je vous remercie. merci cher collègue la parole est à notre collègue Ahmed Aïdara Moussa Diakhaté le suivant. asalaamaaleykum wa rahmatullah messieurs les ministres maa ngi leen di nuyu monsieur le président chers collègues députés et maires chers collègues de la presse monsieur le ministre nag man de dama jàkko jàppoon ne parrainage bi moom suñ ginnaaw la ne bi mu dellu si waatee xaw na maa jaaxal ndax Sénégal nag dafay signé ay convention internationale juriste professeur bu mag Ismaïla Madior Fall Sénégal yëpp seetloo kuy dal ci kawam li ngay njëkk a def mooy tagg ko c'est un professeur émérite doo ko attaqué kon yow ku ne mënul mënoo sa métier ah dina ma jaaxal waaye Macky Sall nag mooy suul ndaanaan Macky Sall mooy suul ndaanaan parce que lii nga xam ne maanaam moom la lay dugal ci lu bëree bëree bëri ñu bari dañ jàpp ne lii du Ismaïla Madior Fall waru koo def ndax sax xam-xam loolu nag moom moo tax ba ma ne la convention yi nga xam ne moom la ñuy signé sur le plan international en tant que juriste professeur ministre lan lay jariñ cours yi nga xam ne moom la ñuy yóbbu ñoom Karim Wade muy xalifa bitim réew yëpp dañ leen a gañe mais suñ tribunaux yi ñu leen atte yëpp yéen yéen a gañe loolu nag bëgg nañ ci gindi parrainage bi nag monsieur le ministre dañ ne cartum réew mi di ndeyu luwaay constitution bi dafa ne fanweeri at ak juróom soo ko amee remplir ay conditions mën ngaa nekk candidat code électoral bi tam li mu wax ak constitution bi la vote est secret man yéen laa ci xaw a yërëm yéen waa gouvernement bi lan moo tax ma yërëm leen mooy képp koo xam ne pare na nga ku dul candidat wu Macky sal yow sa directeur sa ministre ba ci sal Sall représailles mën na am ni leen dóor ba ngeen bëgg a dee te loolu nag la vote comme que est normalement kenn warul xam kan kan la ko teel man moom sama baat ni poto président El Hadj Malick mooy sama candidat. moom laay voteel tey ak suba ak ginnaaw suba kon loolu la xatundi zéro virgule six pour cent la ñu wax léegi ñu ne Macky Sall wàññi na parrainage zéro virgule huit pour cent la woon waa léegi fichier bi ñaata million ñoo ci nekk ba muy nekk zéro virgule six ñaataa ci nekkoon ak zéro virgule ba muy nekk zéro virgule huit tey ñaata moo ci nekk kon tey la parrainage bi gën a yokk ñu jugee ci loolu nag ñëw ci député yi nee nañ treize monsieur le ministre yéen xanaa quatre ngeen bëgg ñu doon candidat mooy APR PDS PASTEF ak taxaw kese boobooy benn ñaar ñu ñëw ci lu jëm ci wàllu maire ak président de conseil départemental yéen xanaa yéen dong yéen benn candidat mooy am mooy APR kese yéen dong am cent vingt maire ñu ñëw nag ci lu jëm ci wàllum parrainage citoyen mais monsieur le ministre amoo leen machine mécanisme yi baaxul technique bi baaxul fan ngeen di sukkandiku pour wax ne lii amul doublon lii am na doublon lii amul doublon lii am na doublon loolu tam jaaxal nañ monsieur le ministre le juriste ñu ñëw nag ci lu jëm ci wàllum Macky Sall a renoncé à la troisième candidature il n'a pas renoncé au pouvoir parce que nag Macky Sall bàyyi na troisième mandat waaye Macky Sall bàyyiwul benn yoon le pouvoir soo ne yow yàlla dogal na ne bàyyi nga mais yaa xëytuma laa organiser la ay élection yu jaar yoon nga jël nit ñi ñëpp bokk ñu dem mais boobu ba léegi Macky bawul mi ngi wax euh, lu jëm na ci wàllum wa APR candidat wu candidat wu candidat wu actuellement nii APR li leen sonal leen kese la ñëpp am candidat ba mu des ñoom li garaaw li garaaw Sénégal fii ma taxaw di wax ak yéen nii am candidat le parti au pouvoir moo amul candidat te boo leen tànnee candidat lambay ñaaw. cher collègue la parole le suivant. Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Ministre, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Nous sachons faire le distinguo entre les acteurs politiques et les universitaires. Vous en êtes un. Malheureusement, vous pratiquez un métier dont le propre et la critique. Et je sais que vous êtes assez préparé pour les accepter. Sauf que nous sommes gênés souvent quand ces critiques ne sont pas fondées est teintée d'insolence. On peut ne pas être d'accord avec vous et le dire de manière la plus correcte, la plus ferme. Mais le respect de la connaissance, pour moi, est une obligation pour tout aspirant à gérer ce pays ou accompagner à gérer. Merci pour, cette, pour ce calme olympien, cette grandeur. Le silence, c'est une communication. Transmettez aussi à ces fonctionnaires de votre ministère qui, hélas, par la position ont le droit de réserve, mais aussi bien dans les amphis que dans la vie de tous les jours, sont des modèles, des exemples, qui au quotidien sont traînés comme des gens négatifs, comme des gens qui n'ont pas de valeur, alors que Dieu sait qu'en dehors de la chose politique, ils sont des gens respectés et respectables. Tous nos remerciements à ces magistrats qui, au quotidien, nous accompagnent dans la vie de tous les jours, dans la pratique du droit au Sénégal. Cela dit, Monsieur le ministre, li ñuy waxtaanee tey li ko jur mooy dialogue ñun nag dañu nàmpatal ci wàllu politique ci kër yi ñu jaar yépp que ni la dialogue est un temps important de la vie politique. oui il y a d'affrontement mais lii li ko jur mooy ñi dialogué et ñan ñoo dialogué mooy ñi tabax Sénégal prenez les gens qui ont participé au dialogue c'est les gens qui respectent le Sénégal et qui ont fait le Sénégal ku tabaxul fenn nag bu la neexee nga yaatu bu la neexee nga toj. ñooñu la ñuy respecter seen volonté et le consensus c'est un modus operandi dans la vie de tous les jours moo tax lii ñu andi muy parrainage bi oui suba dinañ ko laalaat parce que àddina politique c'est dynamique li baax tey day weesu suba mu gën moo tax ñuy wax ne touche pas la constitution dañu xamul constitution du alxuraan gis-gis la jamonoy tollu jamono bu doxee dañ koy soppi na fekk la ñuy soppi mu gën comme ni mu amee nii tey bu njëkk dañ doon ñun ñëpp ñu def benn mode du tey nag mën nañ koo xoolee ci wàll wu nekk tey mën nañ ñii mën nañ parrainer député yi mën nañ pare parrainer l'exécutif mën na pare parrainer le citoyen mën na parrainer loolu mooy avancé loolu muy démocratie noonu lay doxee ñu ngi leen ciy remercier encore bu baax sànq ay nit a ngi wax di demander ñu ajourner li ñuy def ñuy wax ak sénégalais yi ñuy déglu yow nga jël kàddu fii wax li la neex ba pare ci dem toogaat ñëw ni nañ tas lii ba beneen yoon parce que ni muy demee bokkul sax ci respecter nit ñi déjà moo tax ñuy respecter encore cette position monsieur le ministre man na fi ma bëggoon ñu gën a insister mooy cette euh, dimension humaine bi ma gis bi ñu assemblée bi le président mam Diop les député ak ñi nekkoon ci commission yépp bi suma collègue boobu di Birame Souleye juumee ci wax ju ëpp jooj mu wax ba jéggalu ñun ñëpp ñu doon benn say li ci profito di féliciter le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar kii naa cessé ak waay mënti bokk heure bu député nekkee ci dara même bu nekkul ci dëkk rawatina nag bu nekkul ci dëkk ba jéggalu ni yoon doxalee ñu ngi koy rafetlu lool lool lool lool bu baax di remercier toute la justice sénégalaise parce que encore une fois juum na kenn la ci ñun waaye bu ñu koy seedeel itam dont suñu wujju la ku yaru lañ xam ci moom ku am njàng lañ xam ci moom ku am xam-xam lañ xam ci moom waaye li may faral di wax formation politique bi moo des Bara Gaye du ko def Abdou Mbow du ko def ndax li problème bi mooy gis nga ku brûler étape dana feeñ sa jëfin waaye ku jaar ci yoon ñu dalal la baa nga jàng boo taree ñu xam ko et cela se looloo tax ñu koy demandé ku waay mën ci bokk bi Bodian mais on voit Omar bokkuñu fu ñu far mais bu ñu waxee nga naw leen ndax xam-xam mooy yor waaye fer nit ci mbedd mi andi ko assemblée lu ñu dal yéen ñu ko teg yéen Sénégal yi nañ fal xale yu am yar ñu ngi ci fii Abo Mbàkke Caam na ma baal bokkuñu fu ñu far waaye bu xale bi waxee nga xam ne tàggat nañ ko ñeneen ak ñeneen waaye jël kàddu joxar bi saaga xaste parce que amuñ leneen lu loolu ku ne li nga am rek ngay duggee marché et benn discours la mooy am boobu ba léegi élection yi ñi war a bokk naam danañ bokk ñi warta bokk allah kuli al duñu bokk parce que on est dans un pays démocratique ku yoon may nga bokk da nga bokk ku ko yoon tere du xuppe du tiital du yuuxu du dal mooy tax nga mën a bokk parce que on est dans une démocratie et notre état va rester ferme et droit loolu itam na leer ci bopp ñëpp le parrainage daal monsieur le ministre heureusement ñu tombe ci jamono joo xam ni le Sénégal est un faisceau de lumière apprécié par tous depuis que le président Macky Sall a respecté le choix de faire deux mandats comme ni mu ko waxoon asalaamaaleykum wa rahmatulah. La parole vous avez la parole. masata semble le suivant.